nañ ah euh, nga kabeer gi naa la wax benn wax nga dégg ndakaaru euh, bi ngay gis ni gis nga fukki penceer ñaar yooyu ngay dégg Dakar la yem bokkuñu si gis nga Ouakam Ngor Yoff ñoom la daan tuddee tànk tundu jalaaw mooy jalaaw ak li ko wër gendeer tundu gendeer mooy gendeer ak li ko wër dama la wax ne cent vingt et un village la waxuma village yu ndaw yi si yi fi amaat après dama ne man jaraaf Youssou Ndoye may président bu bi nga xamante ne moo ëmb loolu soo gisee fu nekk man may dem parce que dama war a dem man waruma toog di xulli mais dama la bëgg a wax ne foofu ñun bu fekkonte dañ defee noonu tukulóor yi dañ defee ne ah ñetti dëkk la ñu mën a fer ni ngay digg euh, euh, euh, feneen yeneen dëkk yi si Fuuta noonu la fi mel ñun ñi man mii booy seet samay waa samay bokk ñu nga Bargny sama yaay papa Bargny la jógee nga jógee foofu nga ñëw sama pap sama pap yaay dëkk mbaaw sama yaay dëkk tënge dëkk të sama yaay yaay dëkk tënge te noonu la mel si libu gi ay dóofante génn ak buum la dañ kat ñii ñoo saaf rek xam nga ngor la woon ñaar dolli koon nañ si su continué woon heure bii ñu invité yeneen dëkk yu si dugga te par force dañ siy dugg ku si nekk fa nga toog fa ngay toog rek daal di fekk sa sabar aussi xaar ndax aussi euh, euh, ah loolu da dindi man su doom dégguloo ma ne la dama la bëgg wax ne la tey jii jaafi mbaaw suma famille la suma famille maam sama maam bëgguma kat mi jur sama yaay ma doon jaafi ah, mbaaw moo géré woon mbaaw te kenn du ko riposte kenn du fi coow su mbaaw dama la wax ne nga dem tëngéej sama côté yaayu yaay ñoo ilif tëngéej dama la bëgg wax ne nga demaat bar ngi noonu laa fa mel soo gisee waxuma sax sa soo gisee ma doon modéré dafa dof dof tuuti xam nga parce que Sénégal gépp sumay xarit lañ waaye nag kii dof dof lu ba ñaf la mbaj danga koy ñaf mbaj ba tegal ko si koŋ su ko defee mu xam ne àdduna kenn ko yéen dañ siy dox tey jii ñooñu loolu ñooñu laaj loolu ñu wax ne ñoom xalaat nañu xalaatuñu xam nga bu ñu xalaatoon bu ñu xalaatoon dañ wax loolu yow yaa ngi Dakar man nañ la dóor ba croisement jëm ñaar ñu tëj ko loolu ñu na nga nekk dakaar nga bëgg tànjaa fule bu fi ñu nekk xoolal loolu ku a naroon indi. ñoom ñii dugg fi terrain jàmbur du di problème. ñu bëri ne euh, l'objectif du leen lu dul ne moo di génne jii ñoo ngi nga xam ne moo di dagg xol ba ngor yo programme bu nekk am fa mille parcelles ñu bëri ne l'objectif ne mooy dañoo bëgg bañ a amati fi nga xam ne moo di Ndakaaru ndax da ngay partagé ndax da ngay idée yooyu nga ide yoyu man démb sax dégg ka ko ko ci guddi gi sax ko ñoo ni taxal suma kanam ne ma jara état bi day li mo nek seen bop man déedéet nekul seen bop xamul ta nekul seen amagu ñu bok ay éléments yu mel nonu ci nit ñi parce que nit ñi carcasse yooyu xam nga na la du Sénégal amul carcasse du dara bu man bo ma sañon sax bés bu ma doon faluti fii damay defar benn kees ne état lii mooy Sénégal pour wàll ne amul gémmiñ kii koy tudde da koy tudde si jàmm wala mu tudde ko si ndëngate fii ñu toll nii tey dama ne est-ce que xam nga ne euh, Sénégal dafa amoon ay tirailleurs am ay citoyens français parce que xam loolu xam nga ndar boo gisee ñu ne ñoggo ñoggoral noonu ak seeni i sañse ak seen i c'est parce que ay citoyen français lañu woon ndakaaru gii Gorée Rufisque d'accord nga loolu man dama jàpp ne dañu doon diviser mais loolu tey dafa mel ni loolu moo naqari nit ñi wax naa fi ñaari yoon si gars yi ne dama yaakaar ne Sénégalais yi dañu bañ lébu yi seetlu loolu yu bari kenn du si seetloo yu bari dañ ñuy étouffé dama ne place yi may gis sax damay gëj a dégg benn lébu bu ne man day embauché nañ sama doom te pourtant gars yi ngi job xam loolu lii tax may waaye noonu ba weer wii passé bi mën a séparé Modou Fall benn buy nekk directeur euh, travail si la waxtaan mu jël huit cent places jox jox ma huit cent places yooyu moom laay jël te tasaare ko si dëkk Lebu yi pour wax la ne ñun dañ doon am problème yooyu lii may wax nii ba ma ko ren affaire commencé wul ren commencé wul ren soo gisee président nun nu soxla woon ko soxla woon nañ ko si yu bari lu jëm sax si ñun borom doom bi tànk parce que li ñuy histoire ak yi dafa bari kaay. ñu ñu bëri ñoo ngi leen di yëpp bu ñu jaaree ci côté coutume mën nañ leen diviser ba euh, li nga xam ne moom la lépp moom ñu ñàkk ko ndaxte ñu bëri dañoo jàpp ne yéene complot dama la bëgg a wax ne la mu suñu complot ak état gis nga loolu gars yi si ñaaw njott rek parce que Ndakaaru lañ nekk xam nga tey gi tey par exemple. xam nga ni coo Cees di mën a riire boo demee ba xombalax yi Bàmba yax yooyu mën nañu riire noonu seetu loolu gën a jigéen peesu la seulement dama la wax ne lii ñuy def man dama yéem bëgg nañu defar trop dama la bëgg a laaj dama la bëgg a wax lu ndaw tey nga jog di dox lu mel ni comme histoire bi loolu si foog lu bare bare bare na lu bon bon nga jël sa téléphone composé 77 557 88 53 nangam nangam da di ne jaraaf ça va na nga def ça va bien waa jaraaf ma ngi dëgg nga wax ne dañ leen soxla woon de waaw mais est ce que doo ñëw ñu toog waxtaan est ce que doo def loolu xam nga loolu dina defar affaire parce que mag ñi dañ ne way wuy dëpp gaal kenn du ko way ci géej kenn du ko ci lu système boobu la Senghor doon doxe système boobu la Abdou juuf mii fi jóge woon doon defee Ablaye Wade daan toog ba dëkk bi yàqu ñu te dóorante ba tëdd ñuy doog a ah man jikkoom ci fa côté boobu xaw ma ko mais xam naa ne wax na bi passé ne dafa bëgg ñuy dialogue dialogue islamo-chrétien nag loolu bi ñu nekkee xale ba léegi ñu ngi koy dégg mais xam nga lu gën a garaaw lii garaaw président du gaaw a réagir seetu dans loolu mais man su ma lu ma gënal mu am équipe boo xamante ne dafay toog ak ñoom chaque mois lii mat a réglé ñu koy réglé ñii toog si place yi nga xamante ne moo leen fa bàyyi di leen surveiller te ñu toogee fa toogin boo xamante ne arrangé wu ko moom arrangé wu ko moom laay wax parce que euh, xel. àdduna daal wax ba mu leer kenn moomatu ko ragalu ma kaa wax maanaam da nga gis ku toog si place nga wax ma ne non euh, euh, nous sommes dans un pays de droit hein et puis nanga maa nanga wax ah. di forcer nit ñi yoo xamante ne nit ki daway dem këram nekk kii daal yaram yi neexul wérul pour wax la damane ne la barka dem boo jaay fii est-ce que xam nga man dama ngay wax jamm toujours jamm jamm jamm jamm ñi moo bëgg sof xam nga lu tax wax na la ne la Momar arrêté nañ ko fi ci lu ñak fayda ci ay feni neen ñu teural ko ci kaso bi pendant deux mois kay karok dama tok fi semaine bële passé semaine bi passé ni dama tok te dem di tuuti rek parce que man bëgg naa su ma laa tëdd ma xool xare yi def yi ma war a def yëpp doo ko tëdd ma duggal su ma néeg tëdd mais bii ma tëddee tuuti su ma caat mi oo ma ma Jaraaf ma ne waaw mu ne ma ñëwul gaaw ma ne ko la ma ubbi ne ko lan la mu ne ma ay gendarme ñoo taxaw fii euh, Aline Diop ñoo du ñu nan ngay man a gisee gendarmerie war a liggéey ak ñun depuis mille huit cent xaw ma ñaata ba tey gii sa temps tubaab ya ba ba Ronaldo tubaab boobu fi mujjee nga gis ñuy wax di wax di wax di wax ma di dox ñu ñëw ba ci temps yi passé nii la affaire bi am dinaa la signaler foofu parce que xam naa ne bokkuma yow parti <laughs> bokkuñu parti <laughs> mais bu ko dagga dama bëgg nga bu fekkente ne masuloo jàppale suma président nga nga nga jàppale ko benn yoon bii si li may wax. non xaaral eh xaaral doo doo jàppale mais seen seen affaire gis gis naa bu ñu leen joxee ay ay affaire da ngeen di këmmat affaire yi moo tax léegi sax may seet ñi may jëlaat dama jël jël yow nag comme tu es franc euh, sincère wóolu naa la mm. moo tax ma koy waxee noonu mais léegi. <clears throat> nga toog ci place nit ñëw nga koy koñe walla ngay defee ne xoolal ma mar li ko def bay bind gendarmerie Wakaam moo ko def ah bind wax ne alors booy bi même notable Wakaam dañ wax ne ne ñoo bind lettre nangam nangam c'est pas vrai un homme du fen nit ku xam dëgg du fen du tappale man maay président au conseil bi nga xamante ni moo fi nekk conseil des notables boo xam man mii maa fa nekk ak jaraaf Aldiagne ak keneen te xam naa ne jaraaf Aldiagne ak jaraaf Alioune Guèye euh, euh, cuunewuñu noonu xam nga loolu ñu def dañu bind ne notable boo kam dañu wax ne dañ xale bi dañ ko sonal da leen sonal waa kii Momar su ma doo man man ma nekk si ko